monsieur Guèye euh, Mame Mactar may fàttali ne yow yaay secrétaire général exécutif bu ONG Jamra doon tey suñu gan euh, ci matinalu Rewmi FM euh, tey ji comité de défense de valeurs morales ak ONG islamique Jamra ñu daal di nag saisir conseil national de régulation de l'audiovisuel ci plainte benn bi nga xam ne ñu ngi ci dingat benn série télévisée Euh, tey jii lan lañ ci mën a jàpp ci mbir moomu lee waa xam nga boo ko seetloo jàmmaarloo yi fi passé mhm. contre série yi nga xam ne dañuy jalgati suñu cosaan jalgati suñuy diine jalgati suñuy valeur mhm. alors boo ko seetloo série bi li ko wuutale ak yële euh, pexe iblis dëgg dëgg moo ko lalu ndax ñoom tëbuñu rek jàllale ko ci télé bi mhm. dañuy def loolu tubaab di wax ballon sonde maanaam dañu jëkk làmbaatu jaarale ko ci réseaux sociaux yi génne fa ay extrait tubaab di wax avant première alors ba ñu làmbee mu nooy rek ñu daal di def beneen jéego pour jàllale ko ci télé yi euh, te ku nekk mën na seetlu ne extrait yi jot a jàll ci réseaux sociaux yi mm-hmm. daanaka dañuy woyefal dañuy ñàkkal solo euh, mbir mu bon moomu nga xam ne ngor buggu ko diine buggu ko mu di mbirum góor jigéen dinga xam ne euh, téere yu tedd yi sénégale yi di sukkandiku Euh, dàq nañ ko moo xam ñi nga xam ne ñoo nekk quatre vingt quinze pour cent téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom di ay jullit mm-hmm. suñu borom jagleel na leen juróom ñetti fatwa muy suratul anfal suratul ankabut suratul anbiya yi donc dix huit fatwa di rëbb mbirum góor jigéen soo demee ci suñu mbokk catholique yi seen téere boobu ñuy wax lévitique chapitre dix huit verset vingt deux suñu borom wax na fa ni coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination alors kon non seulement yu bon yooyu visio euh, euh, kii euh, série bi di jàllale mhm. suñuy diine ak suñuy aada rëbb na ko waaye même boo tegee diine ak aada de côté dañu nekk ci dëkk yoon dëkk boo xam ne dafa am lu ñuy wax code pénal article trois cent dix-neuf moom tamit rëbb na yu mel noonu alors bu ko defee nag ñoom ñu daal di jóg rek naan non non fiction la alors bëgg taafantaloo loolu pour yàq xale yu bare bari bari bari te yemuñu ca de dañ ci boole di def loolu tubaab di wax désacralisation de l'autorité parentale dans la société sénégalaise xam nga am na ay ay culture yoo xam ne mhm. saaga sa baay wala saaga sa ndey ay kaf la dañuy ree mhm. wala sa ndey wax wala sa baay wax yow mii doom nga ne ko non maman tu papa c'est pas vrai mhm. alors yooyu ñu ngi koy bëgg dugal léegi à travers des séries di ñàkkee teggin day ñàkkee teggin bàyyi du lay nag naan déedéet théâtre rek la fiction la déedéet bu ñu fa bul ñu bu ñu kenn jàppaay dof mm-hmm. xam nañu ne puissance bi audiovisuel am ci yóoru xale yi waaraate discours amu ko ndax dafa am lu boroom xam-xam yi wax surtout sociologue yi mm-hmm. nee nañ puissance su audiovisuel dafay permettre di jàllale loolu ñuy wax des manœuvres subliminales c'est-à-dire nit ki yaa ngi seetaan ak di déglu mm-hmm. mais sans rendre ci compte ñu ngi tabax ci sa biir yóor di tabax ci sa biir xel masalan ci sujet bii ñuy wax di affaire homosexualité mhm. di ci tabax di la won ne déviance sexuelle bi gars yi dañuy coow rek waaye dara new ci aayul ba mu jëntal ga daal mu nekk loolu tubaab di wax normalité maanaam dafay jaadu ci sa xel mhm. voilà kon bu ñu taafantaloo naan non non non fiction la déedéet fiction moo gën a nekk musiba que réalité ndax dafay daf lay tabax ndànk ndànk ba soppi la alors loolu nag ñun du guleet ñi di ko xeex. Mhm. ndax euh, euh, gis nañu fi série yi fi jàlloon lu demee ni euh, le business di sexe bu wal fajiri ndax boobu tur bi rek àtte na àtte na boppam CNRA jox ñu dëgg wal fajiri lank ne du ko jëfee CNRA dóor leen alamande cinq millions ñu lànk ne du ñu fay CNRA daal di au les services techniques pour ñu couper signal bi ñu gisee ne caaxaan jeex na ci la ñu fay xaalis boo xam ne xajoon na feneen eh, ba noppi couper service bi après euh, jàmmaarloo nañ fi bu yàggul tam ak seen TV euh, ak euh, seen produit audiovisuel boobu ñuy wax kawteef kawteef nag du série du du téléfilm mhm. loolu tubaab di wax téléréalité la waaw ñoom ñu ngi ko royee ci chaîne privée française bi ñuy wax ci RTL 9. waaye RTL 9 seen euh, euh, seen kii téléréalité boobu ñuy wax euh, ça va se savoir. Mhm. scénario bi dañ ko daan siiwal ci journaux yi balaa muy jàll ci télé bi parents d'élèves yi di ko liir daan ne ah lii day wax dëgg yàlla yàkkamti nañ mu jàll ndax dina yee xale yi ci yu bari alors autant scénario bi c'était connu d'avance autant kawteef bu Sen TV scénario bi daanaka. amul préparation dañuy ne nekk ba nekk sur le plateau sur mm-hmm. scène di def loolu tubaab di wax improvisation mm-hmm. moo tax ki ma ci gënoon yërëm mooy moo ami et frère l' artiste Pa Faye ndax moo doon micro centralu kaw def waaye moom seen boppam si boppam moo daan toog am lu ko bett en en plein tournage ay actrice di dagg ay saaga ndey di saagante ndey ak bàyyi mu di ko dégg te mu ni ci dara <laughs> moo tax mu mujj bàyyi alors bref ñu jaar ak ñoom ci yoon yoon jox ñu jox jox ñu dëgg daal di arrêté série boobu maîtresse d'un homme marié la même chose ñëpp a xam nañu ne amoon na pornographie verbal amoon na apologie de la fornication et banalisation de l'adultère maanaam di daganal njaaloo di ko rafetal di ko taaral euh, CNRA jox ñu dëgg ba ñoom dóor nañ leen lu ñuy wax mise en demeure ñoom dañu am sens sax parce que dañu nekk en sursis loolu li muy tekki mooy boo ko defaatee rek daan bi tegu woon ci wall fajiri ak ci seen TV mooy dal seen kaw. waaw kon tey nag bu ñu jógee gis lu gën a garaaw euh, business di sexe bu wal fajiri lu gën a garaaw junni yoon kawteef gën a garaaw junni yoon maîtresse d'un homme marié mu di mbirum góor jigéen la ñu bëgg jëmbat ci yóoru xale yi pour ñu jàpp ne dara new ci aayur alors loolu amatuñu droit am toogaay. mbaam ngeen yaakaar ne seen euh, plainte bi wax naa mën a dakkal euh, bi lépp euh, téléfilm maanaam. waaw yaakaar nañ ko ndax xam nga jàmmarloo bu mel ni dañ ko fi defoon en 2014 contre lobby homosexuel yi jaaroon ci seeni jarbaat yi nekk fii ci Sénégal pour jàpp biennale des arts bi soppi ko def ko rendez-vous góor jigéen mooy bu 2014 bi fàtte xaju fi te ñoom dañ ko mujjee jëfee. ndax dafa am ñaari sit d'exposition. Mhm. benn baa nga route de Rufisque. benn bi nekk euh, fii ci Sicap Rue 10 sorewul lool ak euh, centre de santé Gaspard Camara. Mhm. dañ fa doon def ay exposition de de photo grandeur nature. ay góor jigéen yu góor di laxasoo ki nekk ci ay posture yoo xam ne teggin mayewul ma di ko bamtuwaat fii. ak euh, ay góor jigéen yu jigéen ñi di leen wax les lesbiennes. ñu takk ci seen digg ay euh, sexe toy donc euh, mooy loolu nga xam ne dafa niroog sàkkaru góor te te te ndax jigéen amu ko euh, ñu mujj jël bu plastique takk ko seen digg ñu di ko exposé ci biennale boo xam ne aar moo ko tax a jóg ak culture mm-hmm. détourné ko complètement donc pour tontu sa question naan ndax am nañu yaakaar ne mm-hmm. résultat dana am boobu moo gënoon a metti ndax génnoon nañ seen matériel ba noppi di exposé ay xale yu am neuf ans dix ans dugg di seetaan di yàqu rek Euh, ndax xam nga lobby homosexuel yi au niveau mondial ci seen agenda dañu dañu sas euh, seen relais locaux ñu fexe ba def loolu ñuy wax euh, une œuvre de meilleure visibilité gay dans l'espace public et médiatique maanaam dañ leen sas pour que ngóor jigéen gën a fës ci espace public bi ak yu média yi alors moo taxoon nag ñu ñu jog jàmmaarloo ak ñoom ànd ak Jamra ànd ak le comité de défense des valeurs morales bu oustaz Adama Mboup ak euh, sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall jarbaatu sëñ Muntaxa bi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal ndax jarbaatam boobule fu fu Jamra taxaw rek mu nga ànd ak ñun ci xeex bi alors ñoo àndoon ak ñoom ci xeex bi ba yàlla defal ñu ci ndam ba ministre de la culture joxe ndigal dañu mujj tëj biennale bi te bësam jotul. Hmm, parce que defoon na une semaine pour mu jeex. alors kon nag lu mel ni boo amee itam. Hmm, hmm. ah ñun mënuñu dul rek eh, rafet njort rek. euh, pour que le comité de le le conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA bu Babacar Diagne def liggéeyam rek. def liggéeyam neewuñu ko na fa na na def lu neex Massamba na ut lu neex Jamra déedéet. Mhm. na wax li yoon def. waaw parce que CNRA daf fi war a nekk soldaar nekk fi gendarme di saytu lépp loo xam ne dafay xajamal suñu diine xajamal suñu caada di tilimal suñuy valeur mhm. ak di porter atteinte à la santé mentale et morale de nos enfants loolu mooy liggéeyam. Mhm, d'accord waaw te lii werante amul ni werante amul ni ngóor jigéen nga di ko def théâtre uh-huh. mu ngi yàq xale yi te ñi ngi am yaakaar ni euh, CNRA dana def liggéeyam incha allah te mu bañ a soxla ñuy def ay marche yooyu waaye bu ko bu ko deful tam ñu ñun ñu génn def ay ba ci jàkk yépp ba pare def marche ci dëkk bi incha allah. ndax jàpp ngeen ne suñu réew tey ji war naa tiit am njàkkare ci li nga xam ne mooy mbirum euh, góor jigéen. jamono ji ngeen di ah, wax ne dañ koy banaliser war nañoo tiit kay. ndax bu njëkk ba ñoom dañu daan yónni seen i surga rek. Mhm. mais léegi ilimaan yu mag yi ñooy ñëw. du gis nga ni Macky Sall la ñuy def de li tubaab di wax de la résistance mu ngi dëgër dëgërlu rek waaye bu ko nit ñi jàppalewul saay-saay yi seen pexe dana sotti de. Mhm. comme na mu sottee Centrafrique daganal nañ fa ngóor jigéen na mu sottee na seen pexe sottee Gabon mhm. daganal nañ fa ngóor jigéen Île Maurice daganal nañ fa ngóor jigéen parce que ñooñu seeni président donte la ñu ngi doon bañ bañlu waaye bi lobby sentiré ne peuple bi jàppalewu leen dañu wañaar loxoom rek Euh, daal am lu ñu bëgg. Mhm. alors moo tax nag Sénégal war nañoo tiit parce que ñaareel bu yoon a ngi nii ay puissance occidentale yabal ay avocat góor jigéen yu mag a mag kenn ki moo doon Obama en juin 2013 keneen ki di Justin Trudeau ci février 2020 bii mhm. ah ndax bi muy laata ñëw ñun def nañ loolu kocc di wax naan artu ku artuwul di nga atte jëfee nañ loolu ndax à dix jours avant muy ñëw def nañu communiqué de presse jël ay photo mhm. défilé góor jigéen yoo xam ne moom premier ministre Canada Justin Trudeau moo ko jiite nekk ca sàppe yu njëkk moom la tubaab bi di wax gay pride maanaam défilé góor jigéen chaque mois de juillet lañ koy def te moom def ciy jël participation bu mag a mag a mag euh, dans les pays de d' Amérique du Nord ma wan leen photo bi ma ne kii la Macky Sall nar a dalal fii ci réew mi mu nekk suñu gan bañuñu nag mu nekk suñu gan bu fekkee relation yi daf ko yemale ci wàllu mbay mi wàllu santé wàllu njàng mi euh, y a pas de problème après présidence de la république pour pour nasaxal démarche su Jamra ak pour nous désavouer daal di génn benn communiqué signé par le g le bureau d'information général daal di ne non voilà le programme de visite de Justin Trudeau bu ñëwee lii lay wax ak lii dina signé protocole d'accord sur financement nangam ak nangam ma ne yooyu yëpp théâtre la kii loolu indiw ko fi ñu ne waaye eh, Jamra waxati na waaye malheureusement l'histoire nous a donné raison waaj a dem toog dans une instance aussi solennelle que la salle des banquets du palais de la république kilifa yëpp a toog ay kilifa diine kilifa aada ñi am maanaa ci dëkk bi yëpp toog ñu ngi yaakaaroon ne ñu ngi ñuy jox ay xalaat ak idée ci liy suqali mbay mi liy suqali njàng mi wala leneen waaye mu am ñàkk jom gu dey ni jàkkaarloog Macky Sall les yeux dans les yeux naan ko kañu ngay daganal jigéen loolu daf war a jeex. lan moo war a doon waa taxawaayu euh, média bi ak autorité yi surtout ci mbir mi la. waa média yi nag wax dëgg yàlla war nañu waslu ak te seet seen diggante ak seen borom alalu àdduna jarul yenn yi gis nga série bi ñuy xeex tey nii ba mu war a ñu déposer plainte démb le 27 au CNRA ñun am nañ ay information ne ñoom dañu jëkkee woon ci benn télévision waaye kilifa tele googu doon télé ay millions millions séntu na ko ci série bi. waaye kilifa télé googu dafa seet digganteem ak boromam seet digganteem ak àq bi mu ameel xale yi àq bi dox digganteem ak réewam mu gàntal leen fa lañ fa jógee nag daal di dem seen TV voilà ñu bëggoon nag noonu euh, responsable chaîne de télé boobu def te defu ko rek lu dul euh, pour des raisons d'éthique ak bëgg réew mm-hmm. ñu bëgg daal ñëpp daal euh, jéem a tënku ci loolu alors buñ ko defee yàlla mën ñëw yërëm dimbali ñu waaw ndax alalu àdduna fii lay yem waaye bu ëllëgee suñu borom dana la laaj ne la ngóor jigéen bañ doon wasaare Sénégal yow joué nga si rôle bii ak bii ak bii bu boobaa nga daal di ko laaj ak sa borom te alalu àdduna li ci biir yëpp jaru ko moo tax na ñu ngi ñaan méj ay que lii rek def lii comité de défense des valeurs di def euh, ak yeneen i kuréel ñi euh, ñoom ñi ñëw dugal ci seen loxo mel na ni que waa réew mi FM ñu ngi ciy waslu àq ndax yéen tamit fépp foo xam ne combat am na fa ngir euh, sellal suñuy valeur ngir aar xale yi ngir protéger ndono lu rafet li mag ñi baax ñi bàyyi seetlu nañ ne réew mi FM fu lu mel noonu taxawee rek la ngeen da ngeen di dog seen soxla yépp ñëw waslu ci àq kon ñu ngi ñaan nag ñii réew mi FM dem def ba jël xët bu yaatu jox ñu ko ñu mën a wax euh, suñu naqar ci série bii di daganal ngóor jigéen alors ñu ngi ñaan rajo yëpp nii réew mi FM